waa jaaxle la <laughs> boobu. toog muy dox bi bu jeexee effet bii lay def. <laughs> xalma rek la bàyyil tooñ alors man Birame Wathie nuyu naa la ça fait quand même longtemps maa lay fay bu baax passé gisante wuñu euh, waaw pèlerinage Popenguine bi mu ma ngoog hmm. euh, hmm. euh, woon hmm. donc di la bu baax di nuyu soxna Salma di nuyu sénégalais Gambien yi ñu seetaan noonu ñu ngi lay fay bu baax baax alors Salma boo boo boo seddee rek ñu dem ak ak Lémina su ma tàng man rek <laughs> alors ñu dem alors ñu jàkkaarloog Lémina waxtaan ci géopolitique alors tey day def taxaw seetlu ci Burkina Aïcha ku ne xam na ni que gouvernement de transition moo fa nekk donc euh, ki la di Ibrahima Boubacar Keïta Boubacar Traoré autant pour moi donc. Ibrahima euh, Ibrahima. Ah? Ibrahim Ibrahim Traoré donc euh, ni ki samedi bi ñu wees ah, ci week bi am na benn. lël wala waxtaan boo xamante ni amaloon nañ ko ñi ko doon amal des représentants euh, des différentes couches euh, de la société civile ñenn ñi euh, chef coutumier yi ak ñi nga xamante ni ñoo des partis politiques yi li ñu doon waxtaanee mooy fexe ba naka la ñuy amalee wala kañ la ñuy amal li nga xamante ni moo di ab élection présidentielle bu ko defee nag ñu mën a lijjanti li nga xamante ni moo di transition bi am na ay propositions yu bëri yu nga xamante ni nag mhm. tukkee na fa trois ans lay am ñeneen ñi mais finalement je pense que cinq ans la ñu mujjee euh, jàpp pour euh, transition boobee donc euh, loolee waral ki lee di Mame Birame Wathie daal di dippee sujet bi Ibrahima Burkina la transition prolongée conflit Bénin Niger mhm. la Chine taloon Patrice donc dañ koy bàyyi rek mu yaatal ci sujet boobee mhm. Euh, mun nañu li ñu mën a retenir mooy que Ibrahima Traoré. Mhm. mi jiite Burkina Faso. dina toog foofu pendant encore cinq ans. Euh, te léegi amatul chef de transition ah chef de l'état lañ koy woowee. Mhm. Euh, loolu nag décision yooyu fu mu jóge mooy waxtaan boo xamante ne ni amoon na ci week-end bi d'ailleurs samedi ak dimanche la waroon a doon mais finalement dañu ne samedi bi rek doy na. Euh, puisque dañu toogoon di waxtaan mhm. pour dans un premier temps euh, def le bilan de la transition mhm. xam nga maa ngi fi doon wax bu yàggul que bi nga xamante ne ni Damiba defoon na coup d'état maanaam population yi ñu daan génn ci mbedd mi di manifester parce que instant boobu le président Kaboré mi fa nekkoon nga xam ne mun nañu wax ne il a été démocratiquement élu mhm. demoon na ba sécurité dëkk ba daanaka mënatu ci woon dara ñuy noter euh, chaque euh, weer wala chaque deux semaines ay attaques yoo xamante nii day am euh, surtout ci côté nord bi noonu. Mm-hmm. nga xamante ni population yi demoon nañu ba nga xamante ne nii insécurité boobu mënatuñu ko muñ ñu wàcc ci mbedd mi di wax que le président na démissionné. Mm-hmm. bi ñuy wax président na démissionné ci la militaire yi jëlee le pouvoir ki nga xamante ne nii moo fa nekkoon di le lieutenant colonel Damiba nga xamante ne ni moom ak daanaka Ibrahima Traoré mi ñoo àndoon. malheureusement bi nga xamante ne nii moom def na coup d'état boobu jiite dëkk ba def nañu pratiquement un an. Mhm. te insécurité boobu population yi doon kaas daanaka indiwu ci benn solution. ci la beneen coup d'état am en novembre. en septembre 2022. xam coup d'état sur coup d'état coup d'état sur coup d'état te lépp nag li koy indi mooy sécurité. Hmm. parce que population yi dañu jàpp ne mënuñu accepté am armée am police am gendarmerie te à chaque fois ñu naan leen ay terroristes dugg si nañ foofu attaqué nañ rey nañ ay tel et telle personne te affaire terrorisme boobu au Burkina Faso dafa jara euh, euh, euh, taxaw seetlu puisque xam nga bu nekkee Mali sax ñi nga xamante ni ñooy jël armes yi foofu di attaqué l'armée malienne. xëy na même bu nekkee argument yi ñuy joxe c'est des arguments yu tegwul fenn au moins am nañ ay argument dinañu la wax ne ñoom dañoo bëgg Azawad am indépendance maanaam ñuy revendiquer Touareg yi mm-hmm. que côté bi nga xamante ni mooy féete ci noor bi dañoo bëgg mu nekk dëkk bu indépendant mm-hmm. xam nga ñooñu sax quelque part mën nga leen a comprendre même bu nekkee li ñuy wax taxawul mais au Burkina Faso ñi nga xamante ni ñooy attaqué foofu population yi amul lenn loo xamante ni mën nañ ko teg sur la place parce que euh, mënuñu comprendre quand ñu ne Euh, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans groupe de soutien à l'islam et aux yow nga ne islam ngay xeexal demoo ca dëkk ba nga xamante ne ni premier ministre ba góor jigéen la nga attaqué leen. Mhm. demoo benn dëkk boo xamante ne xëy na mun nga wax ne islam dellu na foofu ginnaaw mais ngay ñëw Mali ak Burkina Faso di def foofu say attentat di attaqué nit ñi di naan terrorisme la. Mhm. kon du terrorisme affaire banditisme la. te am na leneen loo xamante ne ni moo laxasu ci ginnaaw. ak euh, euh, mais euh, ñu dem ba Euh, terroristes yooyu dem nañu ba jël plus de cinquante pour cent territoire u Burkina Faso. Mhm. maanaam Mali bu ñu la nee jógee nañu daal wàcc si ba boori Gao. Burkina Faso également c' te la même chose dëkk yu bëri yoo xamante ni ñu ngi frontalier ak euh, euh, Côte d'Ivoire. Mhm. dañu dem ba terroristes yi daanaka teg foofu seen loxo état be bi amatul foofu accès. léegi nag bi nga xamante ne ni euh, Ibrahima Traoré ñëw na gis nañu quand même que ay changement yu bëri commencé nañu fa am. Mhm. non seulement armée burkinabé bi nga xamante ne ni moom da doon wax ne dañ daan dem di loué ji ay armes ab une armée nationale arme bu muy xeexee ak terroristes yi. Mhm. dañ ko daan loué beneen dëkk wala ñu ne. bu nekkee ne terroristes yi attaqué nañ leen ñoom ñu nekk cinquante war a défendre daanaka vingt armes la ñuy yor ñeneen ñi dañuy tiire ba sonn dem jox ñeneen ñi ñuy tiire. Mhm. loolu du du daanaka du armée. Euh, bu ñu la nee dem nañu terroristes yooyu boo occupé plus de 60 pour cent wala plus de 50 pour cent du territoire burkinabé da nga koy comprendre léegi nag bi nga xamante ni Ibrahima Traoré ñëw na moom mu mettre l'accent sur non seulement effectifu euh, euh, armée bi mais également équipement bi nga xamante ni mënul ñàkk pour ñu mën a def face ak terroristes yooyu loolu nag moo tax bi nga xamante ni bërki démb daje nañu ci samedi bi ne dañuy organiser ay assises pour évaluer Euh, transition bi nga xamante ni am na burkinabé yi dañu kontaan ñu si bëri sax dañu ñëw di forcer fi nga xamante ni fa lañ doon defee assises yi. Mm. Euh, di ne ñoom lu ñu bëgg mooy ñu bàyyi fa Ibrahima Traoré au moins pour dix ans. parce que gis nañu ne li ñuy xool ci leader gis nañ ko ci moom insécurité bi nga xamante ni moo taxoon ñu dàq président bi ñu faloon dàq ki nga xamante ni moo moo ko coup d'état insécurité boobu gis nañu ne mu ngi ciy dox ay jéego yu mat sëkk. Mm-hmm. léegi ñu ne au lieu que population yi doon demander dix ans. dem ba sax quelque part nga mën a xalaat ne comme que dañu ne samedi la woon ak dimanche ñu organiser ko samedi dajee fa commencé waxtaan ful bi génn ñëw pousser leen à ce que ñu jógee ci waxtaan boobu maanaam décider loo xamante ni mooy lu concret. Mhm. ci la ñu ne au lieu léegi ñu ne dañuy def dix ans nañ ko xaaj ci digg bi mu nekk cinquant yoo xamante ne nii. Euh, dañ koy prolonger transition bi. Mhm. parce que jàpp nañu ne ab dëkk bu fa sécurité amul mënuloo fa organiser yoo xamante ni day leer transparente de sorte que population yëpp gis ci seen bopp parce que piège terrorisme bi mooy lan maanaam bu nekkee am na zone yoo xamante ni dañu ne terroristes yi ñoo ko occupé yow nga organiser ay élection te dëkk boobu wu ñu bu élection yi jàllee président ba dañu naan ñoom reconnaître uñ ko légitimul ce qui fait que ñoom dañu ne balaa ñoo organiser ay élection il faut que ñu sécuriser dëkk ba yëpp maanaam ñu dem ba nga xamante ni les cent pour cent du territoire burkinabé ñoom dañu koy occupé bu boobaa nag ci la ñuy organiser ay élection mhm. te ci euh, déjà ñu euh, euh, li war a li préciser encore mooy que ñoom ba ñuy waxtaan dans un premier temps dañu ne woon mooy bi coup d'état bi di dañuy def une transition de vingt et mois mhm. vingt et un mois yooyu le premier juillet la war a jeex léegi à partir du 2 juillet ba euh, comment dire cinq mois maanaam soixante mois euh, cinq ans soixante mois dañ ko ciy dolli pour bu ba continuer transition bi bu ñu yeggee ba loolu mat permettre nañu Ibrahima Traoré mi nga xamante ni mooy léegi le chef de l' état. Mhm. loolu na xam naa ne journaliste français yi foog ñu wax ceeg ñoom Ibrahima Traoré nekkatul chef de la transition nekkatul <laughs> putschiste c' est le chef de l' très bien am na possibilité moom mu présenté wu à cette élection présidentielle la te jàpp naa ne euh, loolu loolu lu am solo la puisque mhm. quelque part gis nañu bërki démb ce qui s' est au Tchad nga xamante ne ni Mohamed Kaka mi nekkoon militaire nekk général jël na tenue ba teg na le dem élection présidentielle ba nee na gañe na ko mhm. ba fi mu toll nii tey mooy président euh, fële di Tchad mhm. léegi nag euh, euh, comment dire transition bi bu nekkee cinq ans la cinq ans boobu ñoom jàpp nañu ne dina leen mën a permettre ñu mhm. sécuriser dëkk ba ba organiser ay élection élection yooyu Ibrahima Traoré dina ci bokk bu boobaa peuple burkinabé bi mooy décider mais comme il reste au pouvoir pour cinq ans cinq ans mënatuñ ko jàppee alors un forcing nekkatul forcing non du fa du du à bof xanaa mu nekk rek euh, euh, comment dire xalaatu tubaab yeeg occidentaux yeeg ñooñu puisque <laughs> ñoom jàpp nañu ne très bien puisque ñoom jàpp nañu ne pour que nga nekk président bu ñu reconnaître il faut nga jaar ci ay élection ñu fàtte ne Euh, ce qui s'est passé au Burkina daanaka noonu lañuy ñuy falee le président chinois amul benn élection boo xamante dañ koy organiser ñu ne chinois yëpp kaay leen voté parti communiste mooy organiser congrès congrès boobu am ay représentant fu nekk ci biir Chine bu ñu dajee ci la ñu naan kii mooy. Euh, président bi noonu la ñu falee euh, euh, jipping mi fa nekk noonu également mën nga gis ne genre démarche boobu ci la Burkina Faso jaar ba fi mu toll nii tey ñu ne Ibrahima Traoré dafiy toog pour cinq ans te loolu bu passé permettre nañ ko mu participer à des élections d'accord alors ça veut dire que présidentielles yi ñu dëgmal foofu ci Burkina il pourra se présenter comme candidat waaw tout à fait yow dafa mel ne yaa ngi sa waaji <laughs> loolu la wax léegi <laughs> ah loolu la wax <laughs> non seulement moom <laughs> <laughs> dañ koy bu présenté wu à l'élection présidentielle non seulement day toog mais après il pourra se présenter parce qu'il est légitime en tant mm-hmm. que. Maroc de même ah. que le le premier ministre ak euh, le mm-hmm. président de l'Assemblée nationale ñoo ñëpp permettre nañ leen bu transition bi jeexee. Mm-hmm. ñu ñu ñu ñu présenter seen candidature. Eh, eh, eh, lan boo nar a nekk kon avenir alliance des états du Sahel bi nga xamante ne Burkina ci la bokkoon ñu jàppee woo ay putschistes yu groupe. waaw loolu ça ne ça ne que xëy na format bi moo xaw wuute rek mais au Mali également daanaka la même chose moo fa am xëy na bële assise nationale lañ ko tuddee bi beneen o Mali je pense que il parle de euh, euh, journée de concertation mais dans tous les cas euh, essentiel bi mooy ñoom fexe nañu ba population bi daje maanaam toutes les. couche sociale daje fa. Mhm. tous les secteurs tout les secteurs socio professionnels. daje nañu fa ñu def de sorte ko amul benn pàcc ci société bi ci population boo xamante ni duñ ko représenté léegi représentant yooyu bu ñu dajee ci la ñu toogee waxtaan ne décidé nañu lii ce euh, loolu nag du yàq dara ci ci ci alliance bi xëy na kay li doon garaaw mooy ñu ne euh, transition bi jeex na organiser nañ élection mu am koo xamante nii euh, nee na moo gagné élection yooyu ba pare taxaw ne bokkatul ci AES mais bu nekkee dynamique AES bi ñetti militaires yi ñoo ko téewoon muy Assimi Goïta di Ibrahima Traoré ak Abdourahmane Tiani ñoom ñoo ñetti ñooñu ñëpp jusqu'à présent ñu ngi ci seen bopp dëkk jàpp naa ne loolu du wàññi dara ci AS bien au contre sax parce que bu yàggul dara la semaine passée le ministre Abdoulaye Diop di ministre des affaires étrangères bu Mali mu ngi doon expliquer comme quoi que créé nañu benn confédération ñoom ci li ñu jëm mooy ñu nekk da genre benn fédération boo xamante ni non seulement dañuy am une armée unique mais également dañuy am une monnaie unique de sorte que euh, dëkk yooyu nga xamante ne nii quelque part euh, euh, am nañu bu ñu nee point comme mooy ay militaires ñoo nekk ca bopp ba mais également ñu bokk CEDEAO mais am également leneen lu leen di mandargaal mooy ñetti dëkk yooyu daanaka amu ci benn boo xamante ni am na littoral féete ci géej gi. Mm-hmm. ce qui fait que quelque part ils sont condamnés à se nekk benn te dynamique boobu ñu ngi ci ba léegi. et pour le cas de ñu a taxaw la quand même statut <laughs> waaw xam nga Dumbuya moom c' est un peu c' est c' un peu compliqué te mhm. booy seetlu sax euh, daanaka ñu ngi wax ay AES di wax euh, les trois militaires yi nga xamante ni ñu ngi regroupé wu di daje boobu ba léegi mais euh, kenn déggu ci Guinée. Mhm. parce que quelque part li nga xamante ni moo di distingue ñële mooy seen position par rapport ak la France mhm. parce que muy Assimi Goïta muy Ibrahima Traoré di Abdourahmane Tiani bi ñu jëlee pouvoir bi li ñuy njëkk a def mooy ne relation yi nga xamante ni am nañu ko ak France dañu bëgg mu dakk te loolu nag c'est tout à fait compréhensible mm. puisque France Euh, depuis 2012 mu ngi nekk au Mali ne da leen di xeexle pour ñu euh, génn ci terrorisme. 2012 mhm. ba ñu fay ñëw daanaka terrorisme bi au nord la nekkoon ci daal ba ñu bañ leen di dàq bañ fay jógee daanaka terrorisme boobu jóge ki daal ba wàcc ba ci biir dëkk bi ce qui fait que boo déggee ne dàq nañ leen c'est tout à fait compréhensible kii di dumb Doumbouya nag non seulement ñu ngi naan français la. puisque ci légion française la jàll ba la jaare ba nekk militaire mm. légion étrangère mm-hmm. mais également gis nañu ne depuis que mu nekk à la tête de la Guinée amul benn euh, ko amul euh, lenn loo xamante ni jéem na ko def pour corriger diggante Guinée ak euh, la France mm-hmm. ce qui fait que ñu bëri dañu jàpp ne ñee seen dénominateur commun mooy relation yi nga xamante ni seen dëkk seqoon na ko ak France te ñu xoolaat ko mm-hmm. alors que euh, Doumbouya moom ba mu accès ba léegi daanaka diggante Guinée ak France moom waxu ci dara te xëy na sax li mën a tax man euh, ku mel ni man mën a comprendre coup bu am Guinée parce que dama koy wax di ko waxaat man gëmuma coup d'état mm-hmm. d'accorduma ci coup mais li mën a tax ñu xalaat ne foofu sax coup bi xëy na am na tuuti importance mooy ku mel ni Alpha Condé dafa nekk à de l'État di tegle ay mandaam di tegle ay mandaam ne du fa jóge ba euh, comment dire forcer un troisième mandat mm-hmm. ñu bëri ñàkk seen bakkan te terewu ko mu forcer troisième mandat boobu ce qui fait que ne soo déggee kooku di def forcing coup d'état nañ ko quelque part da ngay jàpp ne mm-hmm. c'est une injustice qui a été corrigée mais loolu warul tax ñu ne comme que euh, Doumbouya agsi na au pouvoir par les armes jëlee na fa comment Alpha Condé moom tamit dañ koy compter ci révolutionnaire africain yi nga xamante dañoo bëgg seen dëkk seen dëkk moom boppam en tout cas acte yu mel noonu jusqu'à présent posé gu ko. posé gu ko mhm. aussi ministre bi moom nee na décision bii ñu jël day wane ni que ñoom dañu nekk ci benn tournant décisif boo xamante ni dina leen gën a mën a permettre ñu conquérir seen territoire mais euh, gën a xool bu baax a baax naka la ñuy gën a mën a téye seen réew. waaw tout à fait xam nga maa ngi wax ne euh, yëngu-yëngu yi am Burkina Faso ci euh, ana yi yëpp li ko gën a waral mooy. insécurité mm-hmm. wax naa ne Kaboré mi nga xamante nii moo fa nekkoon président de la république population yi dañ doon manifester pour jëlee ko fa que dañoo jàpp ne Euh, insécurité bi nga xamante ni sonal na leen te tamit ñu ko daan euh, constater régulièrement ngay dégg ay attaques rey nañu vingt personnes rey nañu trente personnes loolu di continuer population yi dem ba jàpp ne lii nii kat mënatul a la con mënatu la wéy d'autant que yow naka nga mën a comprendre nga nekk comme rek ñu ne au Sénégal tey jii nii Saint-Louis maatam état du Sénégal amatu fa amul gouvernance amul police amul dara ay terroristes ñoom ñoo ko gérer xam nga bu boobaa quelque part yeneen euh, euh, population yi nekk ci yeneen régions yi mun na leen a métti ba ñuy organiser ay manifestations di wax ne dañoo bëgg seen dëkk ñu moomaat ko dans son intégralité. Mhm. c' est ce qui s' est passé au Burkina Kaboore bi ñu koy coup d' état daanaka mun nañu woon wax ne 40 pour cent territoire Burkina Faso terroristes yi ñoo ci tegoon seen tànk léegi bu nekkee ci circonstances yooyu noonu le coup d' amee. coup d'état sur coup d'état parce que ki njëkk a def coup d'état bi maa ngi koy wax sànq muy Damiba li taxoon mu ne day def coup d'état ba maanaam fexe ba euh, comment insécurité boobu population yi doon xeex mu def mu def de sort ko mu jóge fa mhm. il n'a pas réussi parce que effectivement mënuloo ne da nga bëgg a jëlee insécurité Burkina Faso ba pare continuer di lëkkaloo ak France parce que man dama jàpp ne wax naa la ko sànq am terroriste yoo xamante ne nii nee nañ dañuy xeex pour islam gën a dëgër demuñu attaqué dëkk yi nga xamante ne nii premier ministre ba góor jigéen la ministre des affaires étrangères góor jigéen la mais ñu ne dañuy ñëw Burkina Faso ñëw Mali goo xamante ne nii quatre plus de quatre-vingt-dix pour cent de la population ay musulmans la yoo kay soo bëggee dëgëral wax dëgg yàlla. wàllug diine tey ci àdduna bi am na dëkk yu bëri yoo xamante ni mën nga dem attaqué leen parce que jàpp nga ne ni ñuy pratiquer islam baaxul wala ni ñuy toroxalee musulman yi neexu la nga ne dem attaqué leen. Mm. mais mënuloo ñëw Burkina Faso wala Mali nga ne da nga leen di attaqué pour gën leen a dëgëral ci wàllu lislaam mm-hmm. pour man loolu ay tappale la te xëy na émission bi du ko permettre mais ci yeneen i émission doon naa expliqué ne waxu terrorisme boobu ay waxu caaxaan la. ñi nga xamante ni ñooy attaqué dëkk yooyu dañ leen a mhm. organiser jox leen ay armes pour ñuy attaqué dëkk yooyu parce que seetlu nañu ne bu ñu jëlee exemple Mali boo seetloo euh, géographiquement or bi nga xamante ni mu ngi Mali li ci gën a bëri ci noor bi la nekk. Mhm. maanaam bu ñu fexee ba créer foofu ñu créer fa insécurité wala ñu jël exemple Libye ci suba damay liir ñu ne libi tey jii nii euh, dépassé na Nigéria ci wàllum production pétrole. te su ma la laajee kan mooy président Libye doo ma wax kan la su ma ko laajee Salma je pense pas que dina ma wax kan la. Mm. xamuñu président ba fa nekk parce que depuis que Kadhafi nekk fa dañu def de sorte que euh, déstabiliser dëkk ba. Mm-hmm. de sorte que ay groupe armé ñooy nekk ci euh, zone pétrolière yi di ko contrôler di ko exploiter sans pour autant. état euh, euh, libyen bi nga xamante ni dañ koo déstructuré mën a am accès ci pétrole boobu. léegi euh, très ñu mën a tànk nu mu leen neexe donc bu ñu demee ba nga xamante ni un pays non organisé. Mhm. boo xamante ni ay groupe armée ñoom daanaka ñoo koy diriger ñu dem ba ñu ne la dëkk boobu moo dépassé Nigéria ci wàllu production de pétrole da ngay xam ne tout simplement affaire de. créé nañu insécurité pour jël li nga xamante ni yéen a ko moom di ko exploiter di yóbbu seen dëkk. Mhm. c'est ce qui s'est passé également au Mali nga xamante ne ni noor bi moom moo am or ñu fexe ba ne terroristes yi foofu la ñu nekk. Mhm. léegi ñu indi français yi ñu nekk ci digg bi indi euh, ONU. munissement mu nekk ci digg bi de sorte que même armée malienne su bëggoon a attaquer terroristes yooyu pour génne leen ci zone yooyu du ko mën puisque France mu ngi fa ONU mu nga fa di servir quelque part de tampon. man de ça m'a paraissé tout temps bizarre que bu ñu jàppee terroristes yi rek foofu noonu fekk leen ak ay ay armes ak ay munitions yoo xamante ni. armée bu France sax daanaka yoroo ko <laughs> su ma demandé ñii fan la ñu jëlee armée ay médicament te mënuñoo tukki mënuñoo génn réew mi kon ko ma leen koy indil <laughs> te bu fekkente ne France am na fa barxaan force barxaan force force force force force mm. war na mën a contrôler quand même base yi contrôler aéroport yi ba mm. lépp luy dugg mor ko xam donc ñoom fan la ñu jëlee seen armée te xam nga lan lu gën a doy waar est ñoom ñoo leen koy jox li gën a doy waar mooy Euh, euh, euh, tubaab bi ñëpp xam nañu ne en matière d'arme d'armement am nañu technologie bi. Mhm. te Mali ak Niger ak Burkina bokkuñu par exemple ak Casamance. nga xamante ni am na ay garab yu leen mën a permettre ñu làqatu ba kenn du leen gis mais fële désert la yow ñoo xamante ni dañoo yor ay drone man ma jàpp ne melentaan sax suy dox ci suuf ñoom mën nañ koo gis léegi ñooñu naka lañu ñu mënee ne quelque part gisuñu terroriste yi xamuñu fan la nekk ba terroriste yooyu jékki-jékki rek attaqué maliens yi rey ci ñoom ay soldats yu dul jeex donc c' fait exprès mhm. te en plus de ça ñun suñu dëkk amu ci benn boo xamante ne nii mais euh, euh, euh, xeej sax mun nga koo defar waxatuma laa ay kalachnikov ak ay arme d'assaut mhm. ay arme d'assaut mhm. donc yooyu su fi dugg see c' est parce que effectivement ñoom ñoo ko bëgg mais xam nga <laughs> maa ngi koy wax sànq peut être temps bi duñu ko permettre mais loolu yëpp stratégie globale la parce que autant bi muy attaqué Libye en 2000 10 2011 ñoom xamoon nañu ne. bu ñu defee loolu day na euh, comment dire dina déstabiliser tout le Sahel. te jàpp naa ne loolu la si jublu maanaam dooleel ñi ñuy wax ay terroristes ba nga xamante ni dañuy ñëw occuper zone yi nga xamante ni foofu moo riche de sorte que pouvoir bi du fa am accès. Mhm. bërki dem maa ngi dégg ci euh, guerre bale am RDC M23 ak armée bu euh, bu bu bu Congo que. Euh, euh, euh, comment dire chiffre boursier yu bëri dañu wàcc. quoi parce que zone bi nga xamante ne nii. M23 di rébellion bi ñu ngi ko doon xeex ak armée congolaise bi zone boobu dafa am ay ressources naturelles yu bari ñu ne bu fa xeex amee rek daanaka produits yi nga xamante ni c'est côté en bourse yëpp dañuy jékki-jékki chuter tout ça pour montrer que Afrique richesse yu baari yi nga xamante nii ñu ngi ne am na ko mënu koo exploiter te li ci gën a li ko gën a yokk mooy insécurité bi nga xamante ni tubaab yi ñoom ñoo koy organiser tout simplement pour def de sorte que zone yi nga xamante nii moo am richesse yooyu état central bi du fa am accès de sorte que ay groupe armé ñoo fay nekk. di mhm. exploiter richesse yi di ko yóbbu sans pour autant population yi mën ci bénéficier wu. mais tey jii jàppee nañ Ibrahima euh, comme un président normal. Mm. président pas comme un putschiste. léegi euh, CEDEAO lan ngay xaar ci moom concrètement comme que ñoom dañu leen euh, stigmatiser woon mel ni ñu leen bërgal. non CEDEAO moom c'est une histoire ancienne pour pour waa Burkina Faso. <laughs> xam xam nga sànq euh, Aïcha Diakhaté mu ngi koy wax. Mm. su ñu jëlee exemple Mali en 2012 ñu ne terroristes yi dañu dàq armée malienne ba ñu daw ñëw ci capitale ba. Mm. terroristes yooyu ne Azawad la ñu bëgg mu am indépendance te loolu ay caaxaan la. Mm. li ñu bëgg mooy zone bi nga xamante ni moo am or bi ñoom ñu occupé ko. Mm-hmm. léegi communauté internationale bi ne dañuy jàppale Mali pour mu génn ci xeex euh, insécurité boobu ko terroristes yi teg. ñu ne créé indi nañu euh, dans un premier temps Serval la woon. bu France. Serval ba mu fa jógee ñu ne Barkhane moo ko remplacé. Barkhane ba mu fay nekk boobu fekk nañu créé G5 Sahel. nga xamante ne ni euh, malila la Burkina Niger. Tchad ak Mauritanie cinq pays. ñu bokk ko ñu ne également MINUSMA mu ngi fa ak près de quinze mille hommes. wax naa la Serval. war naa la Barkhane wax naa la g cinq Sahel. wax naa la MINUSMA mais am na également une beneen beneen force bu tudd Takuba. boo xamante ne nii ay forces spéciales euh, pays européens yi la. Mhm. ñoom ñoo fa ñëw daje. gis nga force yooyu yëpp ma la wax. Mhm. def nañu Mali pratiquement dix ans. te non seulement xeexuñu terrorisme bi. Mhm. mais terrorisme bi da doon gën a yokk wax naa la ne au départ. bi nga xamante ne nii ñu ngi attaqué Mali. Mhm. au a à Kidal la terroriste yi nekkoon bi nga xamante nii ñu ngi fay dàq ñii ma la nii yëpp ay MINUSMA ay Barkhane ay G5 ñooñu bi ñu leen di génnee foofu boobu fekk na terroriste yi dem ba 60 pour cent dëkk ba ñu teg fa seen loxo. Mhm. pour dire tamit la question de Salma elle importante mooy que ne bu ñu nee CEDEAO on parle de l' te tey bu fekkente ne dañu ñi nga xam ne terroriste yi CEDEAO ñoom. jaawale combat bi la ñu war a changé def ko paix. parce que ñoom nekkatuñ ci économie ci politique lañ nekk. te tey nii ñoo ñëpp ma la limal. Mm. xëy na mënoon nañ leen a ñàkk soxla bu nekkoon CEDEAO def na lu ko war mm. maanaam ñu ne Sénégal dina joxe 1000 soldats. ñu ne Gambie comme ñoom kiiwuñu dañ joxe eh, ñoom nu mu tuddati maanaam ñu dajale une force boo xamante ni CEDEAO moo koy moom. Mm-hmm. pour dem taxawu Mali gi nga xamante ni dafa nekk en Mame Birame Wathie c'était la chronique du jour chronique géopolitique am na solo tous les lundis. jërëjëf ah, sama deuxième sujet bi moom bàyyil ma off ko rek. waaw bu bi dafa tàng.